salaamaaleykum sama gars yi fan yi su ngeen seetloo ñu ngi ñuy bëgg a rey di ñu delloowaat ci ay caaxaan ñu delloowaat ci ay làmb di ñu delloowaat ci ay musique di ñu delloowaat ci ay ngaak blende ak lu birig lu ko waral pour bëgg nelawal ndaw ñi saa suñ bëggee nelawal ndaw ñi rek musique la ñuy yëkkatiwaat ak làmb kenn ku ci nekk xam na ne ñaar yooyu ba soon Sonko ñëw ba léegi ñaar yooyu dañoo am jafe-jafe par exemple kii di Wally Seck nga xam ne moom laa nekk ci kontam nii su avant affaire yi coow yi politique génne benn benn way benn clip vingt quatre heures bala mu ko doon am daf doon am un million tey xool ko kañ la gëj a am un million duggal fii nga xool Wally Seck ban mois la gëj a am un million di nga défilé ba sori lool soo ko gisee fu mu amee un million ci biir kontam bi beneen bi mooy Youssou Ndour yuusu Ndour ba léegi mi ngi woy moom tamit soo duggee ci kontam kazaalika noonu la dangay gis na moom ba mu gëjee am ab un million sax ëpp na un an Wally Seck mi ngi ni six mois bi mu gëjee am benn waay bu def un million def fii kon loolu ne ndaw ñi war nañ ginnaaw ay caaxaan teewul nag am na ñoo xam ne ñoo bayam am na ñoo xam ne moom ngelaw bu ñëw mën na leen a yóbbaale am ñoo xam ne bu musique bi ñëwee yóbbaale leen bu coowul politique ñëwee ñu nekk ca mais ku xam foo jëm wax dëgg yàlla nga xam ne ay ngaaka bi leen ay ahlu birik loolu ñoom loolu ñuy def noonu ñoom la amal njariñ mais amaluñ ñu njariñ parce que cliquer bi nit ñi dem di cliquer ci seen chaîne YouTube yi di seetaan seen vidéo yi loolu daf leen di may doole daf leen di may xaalis xaalis boobu ñu ciy gañee moo tax ñu ñuy woo ci loolu Kara sant bi du lenn lu dul loolu parce que jamono bi ñu koy defee jamono boobu la ñuy ëpp ay vie parce que nit ñi dañuy daw di seetaan xaalis boobu ñu ciy gañee nag loolu dong ko waral sëñ bi artiste bu fi nekk boo xam ne yëgu la li ngay dund yoonam nekku ci courant bi cher nii doo dégg kenn ku ko way ci ñoom li askan bi du doo doo dégg kenn ku ko way ci ñoom Youssou Ndour ngi nii astaghfirullah matul un an mais neuf mois neuf mois am na neuf mois yoo xam ne amul euh, benn way boo xam ne def na un million de vues boo paasee euh, boobu sax da dem un an presque deux ans ngay soog a amaat beneen kon ndaw ñi yeewu nañ ndaw ñi moom yeewu nañ bu baax mais nag teewul am na ay benn benn yoo xam ne ñoom wax dëgg yàlla yee leen day jafe lool. musique bii nag kenn ku nekk nat sa bopp ban njariñ la la amal yow yaa leen di amal njariñ waaye ñoom amaluñ la benn njariñ boo doon dee boo doon dugg ci gaal gi ndaw ñi fii dugg yéen a déggoon musicien bu ci way ci ñii ñi siiw ñii seen yoon nekku ci sax bu ndaw yi sénégalais yëpp doon dee tamit seen yoon nekku ci parce que ña ngay ragal fu leen Macky waroon a invité ëllëg kenn du leen fa invité bu ñu defee lu mel noonu te noonu lay deme Macky képp ku génne woon benn morsa woy ko contre ko lu mu organisé du la ci boole ak loo amal amal njariñ askan bi noonu la moom politique am lool la politique am moom mooy loo amal njariñ amal njariñ askan wi yaa xam waaye man bu ma tudd bu ma critiquer